salaam sama gars yi c'est Mohamed Ndiaye 222 tey dama ñëw pour ma leen nan la ñuy dugalee connexion bu 1000 francs am na ñoo xam ne bu Taraawee bi la ñuy dugg da ngay ñëw dugg téléphone étoile onze onze dièse plus expresso moo appel <coughs> boo ñëwee date bi un un def Boss Balde envoie. boo ñëwee kaat ngay def mooy plus d'option 4 ngay bës bës envoyé encore boo ñëwee 3 ngay defaat tegtali ngay top naa ngay topp tegtali ngay defaat mooy biir rééducation partagel vidéo bi nag bu ñëwee encore 3 ngay défat moy bir 2.000 à 50% de réduction 3 mo nekkaat nii moy 3 bi mo ngay défat rek bëgg na ngeen jaal sama compte YouTube mi ngeen abonné fofu gis nga mi ngi ni mi ngi ni ay gis 1000 francs da nga am bonus 2.000, da nga am 120 minutes tous les réseaux da nga am 200 minutes d'appel, da nga am da nga am 250 SMS da nga am 200 appel Expresso tamit da nga am 3 gigas yo xamne da nga koy connecté si mois bi da nga am 2 gigas yo xamanteni ci livre lay don. par minute 0 heure confirmé après nga bëss confirmé bu dé ya nga crédit 1000 francs nga bëss confirmé après mu jall. isaan yi aw crédit motax tax dama ko duggal ba paré. oui c'est simple. gis du jàll jàll leen partager vidéo bi